waaw sëñ Fall yow teel ngaa wàcc. suñu Moussa daa waxoon day dem Dakar. day dem Dakar. day dem Dakar monsieur daal ma nii rek lañ leen def xale yi rek duñu leen jàngal ñu. bu ñu koy bu ñu xëyee duñu jàng dara dara dara dara. nii rek la ñuy dëkkee ci yéen ci école bi ah. xëy duñu jàng dara dara waaw day na waar de. waaw meññ juróom-juróom. juróomi dërëm man ndax naa am naa juróomi dërëm. meññ juróom-juróom ma. meññ juróom-juróom de meññ juróom-juróom. lii ñaar fukk la de. dërëm dërëm dërëm fukk laa la joxe dërëm eh, dërëm. Eba kañ. man du mel ne nga ma. kañ ku ñu añ añ añ kaay kaay mu nga jeexal de am am betante maam ki mooy kan ki mooy da ko reewale reewale ba kenn xamul lan la même am njàngam sax da koo yàq ndax reewande waaw waaw nii la ñu def daal ci koñ bi. waa ni jaay ma waaw. yow tey demoo fenn. tey génn ma sama yaram yëpp ay métti. dëkk bi fan yii dafa ngelaw lool. tey ngelaw li daa bëri. dafa bëri lool. waa tey bëggoon naa ñu waxtaan avant maa dem marché. ñu wax ci lu mel nan noonu. Mandumbe mii. man me meunatuma genn ci mbedd mi man me meunatuma dem tour man me meunatuma dem marché ak lolu mom fan la ko tek man me yabate na yabate bo xamantene ñak yaru ñak yaru xamewul moromu ndayam xamewul moromu baye lolu mom fan la ko tek barki démb ba ma tour dama dem bay nara tek ñu tim ma lu neñu wax sa dom ji li sa dom ji la ne coppet samay daal do ak mom lolu jaaduwul te yow lolu dang ci wara wax ndax man me mi yaroko ah leg da su mu jumbul def ak limu do def ya ma koy wax leg wa quartier bi ñoo ñëw di wax yow pour nga mëna wax ak man man dumé sama dom la mako jur lu mu bëgg lo la bëgg tay bu suba lu ko neex neex na ma déggal ma wax ba ah leg dal wa quartier dañ ko bañ yow nga bañ ko ah leg dañ ka bañ. man ma bañ ma numé man mënumaa bañ ma numé man numé suma ko bañ du ma bokk ak mom ci kër gi xam nga né man numé ko bokk ak mom kër kër ku né yow mbor nga. ya ko wax sa kon nak yow ngan nga. da oh. nga bayé ko teppé ko. lan la. dañ maa dàq yow yaa mën a fen dinaa daax daax école loolu man daax la. suñu directeur nee na ma dama ñibbi. du loolu laa la doon wax léegi. loolu laa la doon wax léegi noppeeku gis nga kii waxuma la école waaye bu demoon tey ñu ko muy liggéey liggéey bu baax sax dinañ ko daax. sëppe ko sëppe ko laa wax watam bu bon bii nii. Eh, déglu ma nag war bi nag war bi nag bu ko tudd. yaa bu ko tudd golo ñaawul ba wax ko loolu. golo ñaawul ba la nuru voilà. gis nga kii gis nga góor dara. may wax mu naan dañ kaa dàq. oui ma te foo dem dinañ. jàmm gën eh, eh, sa tante laa wax. génn moo sa bàyyi wax doo noppi waaw yow na nga bàyyi wati fam gi nag dégg nga mën a wax golo ñaawul bàyyi am la nuru waaw yow wax ko loolu golo ñaawul bàyyi ba la nuru voilà léegi nag yow wax ma loo def ba ndàq la loo def papa man xool moo moom def nii bul ma def nii ya man mii waa école bi dañ laa soxoree directeur moomee papa man mi may def nii yow mun a bàyyi ko nag yow man defuma ko dara

na ma sa loxo laal sa loxo laal. <laughs> papa sama loxo sa loxo bu ma laalee sam loxo papa laal la. Eh, bu sa loxo papa laal yaa ko tudd. ah ah yow kat yow waaw yow mii. <laughs> soo ba yàlla seen directeur seen directeur lu teg ko ci école muy jàngale mu nekk fa naa day jéem a dàqaat waaye xaaral rek tegoon ko fa pour muy dàqaate dañ ko faa def pour muy jàngale. foofu yëpp dañ maa bañ. yow noppi rek soo ba yàlla day lépp dina leer. alma nii oh, may ma sama doom lan dàq. may xam ne moom laa yaakaar. wala nekk ministre. waaw ministre. lan dem nekk ministre. dogal aywa. waaye man damay bëgg a waaru wala damay avec saana ñu ne kii di ma naqari neexuma kii man mënuma ko bëgg mënuma ko bëgg du lu may mën. waaw. wuru laa dàq c'est pas normal ah école bi ko fi pour muy dàq da ko fee teg muy jàngale taxawal rek. waaw waaw waaw non non génn génn sa waay kii génnal kii soxla dëgg kaw. Eh, eh, ana gardien eh. dama ne nga déglu ma laa xanaa looy a dàq nag ba ànd ak baay mi ngi nii ànd ak baay mënoo noppi rek déglu ma xam loo bëgg nga wax ma la moo ndey nga dàq sama doom laa nga wax ma ko loolu laa bëgg a dégg ñëw noppi sa doom la n'est-ce pas maay kii xaw ma lan la mais du élève kii xanaa yaa deful élève maternelle sax ñoko tané ki du ñëw heure ban heure lañuy xey xëy xamul xamul ne huit heures la ñuy xamul ban heure lañuy ñuy wàcc day ñëw dugg 9h passé 10h dugg tok 15 minutes buy génn du jall ci prof bi bind ci tableau bi rek mënoo déglu mu jaar ci palanteer bi tëb mur génn celui-là je sais pas c'est quoi qu'est-ce qu'il deviendra mais il deviendra pas une personne importante dans ce pays parce que c'est pas un élève non jëlal su dom ngeen dem sa way te nga dem setal foko duggal may pa pas école. dama ni fii la jàngee dama ni fi la jangé tay mu neex la mu naqar la li lay wax nak len la dama bëgg bay ko mu jàng fii waroo ko dakk c'est pas normal ko diko dakk ah. dom dafa am fu mi tambalé ci kër la tambalé cadre bo bëggé dom bu don cadre ëlëk dang koy yar yaru cadre ba mu juddoo nga koy yaru yaru cadre teg ko ci yoon bu baax yóbbu ko école ñu jàngal ko jàngu cadre ne ëllëg mu tekki mais kii avec cet accoutrement là regardez-moi on dirait lii lii eh, même conduire eh, bu ñu dagg ci bopp lii mooy dabala dabala eh, dama ne booy wax nag wax ci wàllam jàng rek waaye wàllam boppam ak wàllam li mu solo kooku seen nëkk ndax gola ñaawal bàyyam la nuru dégg nga ma la wax baax vous avez la même chose là baal sam bopp baay baal sam bopp baay li ma lay wax ne bëriwul sa doom ji dafa réew. Eh. effronté. yaa ma gën a réew. Eh, eh, yaa ma gën a réew. xam nga mu ne ah man a nga réew. lan laa ko def. waaw noppi lan la ko réew. génn seetaan ak kooku sa baay. xanaa wóoloo sa baay. bañ a wóol waaw ma li ma lay wax bëriwul dama ne école bi fi lay jàngee mu neex la ak mu naqar la né école bi xam naa fi loo xam yoo xamoo ko yow mi directeur waaw wala école bi sama école ñaw xam naa fi loo xam ne xamoo ko neex may dàq ku ma neex mais kii dama ko accepté woon au début mais depuis qu'il a changé qu'il est devenu du n'importe quoi ki moo raw sax paludisme ci biir école day wàlle quoi kii xamoo fan lay mujjee ak lii ak élèves yi regarde tous les élèves apprennent correctement ñëw heure wàcc heure respecté seen i maître mais kii xameewul maître ak gardien xameewul directeur ak je sais pas non maay bàyyi maay bàyyi déglu ma rek xamna sama doom gënoo ma xam ndax man mako ko bam tollu ni école classe bee ne bee yaa ngi koy seen classe bé la allah waat jàngal bi ah, classe bi ni ay papa ba léegi nag yow ya réw dag ma gëmul deug la kay yow papa mo yow papa li ngay wax gudd dundé réw ba dof eh, dafa ya- effronté yam gën réw franchement ki mo réw paludisme sax ci école bi mëna wala élève yi sa baay ngay wax da nga réw sa baay ngay wax da nga mëna fen mën a ma da nga réw yow man ngay man ngay wax da ngaa mën a fen loolu dafa gudd nak yow ban ah, dem kër cadre yi wax nga ne fii lañ jàngee fi lañ jàngee yow fo jàngee sama papa jàngul école. mu jàng yow parce que boo jàngoon correctement. histoire damaa rëcc histoire rek yoo jàngoo sax daara li ma wax dëgg la de daara sax laa jàngoon sa doom du mel ni xam nga la la sawar doom dañ koy yar ba mu juddoo nga koy tàmbalee yar yar ko yar bu correct yar ko yar bu jaar yoon boo gisee nit ñi di yobbu sax seen i doom jardin d'enfant pour mu tàmbalee yaru à deux ans trois ans bu màggee doon mais kii eh. bu tegee tànkam ci école bi rek élève est am xam est koy sax di papa papa du c'est pas quelqu'un qui va réussir sortez de mon école tout de suite s'il vous plaît sortez d'accord nga bañ sama ministre wala député wala avocat wala ingénieur dama la nga perte sa temps si école pour sa dom nga dem seeti feneen foko ko dugal. dama ne dégg nga dégg la. waaw sama dom dina nek ministre wala mu nek président do ci mun. d' accord bu la nexé mais tekki fay am ay firnde quoi am ay ah. signe mais ça c'est pas bon signe. alors kii Bujuman sax na naru ko nekk. Eh, ak yow Bujuman mën naa nekk président de. nga bu la jëriñ de. wa mais à partir d'une autre école mais pas à partir de cette école il va pas apprendre ici pour être président parce que ça ça va ça va jamais se produire. li ngay la xaw ma ko laa wax. da ngay wax wax olof. c'est parce que jànguloo école prenez votre fils et sortez de mon école tout de suite ou j'appelle le gardien génn leen école bi génn leen si biti. Euh. Youssou. Youssou. waaw nañ dem nañ dem waaw Youssou. waaw Youssou mu génne leen bu génne ma ne ma nga leen jaarale génn eh, nan dem nan dem fii doogu oh, nekkul école fii doogu nekkul école sama doom dina réussir dina nekk président day nekk député day nekk laa wax عليك ستوت عيبك بيدوري Follow my salone. Aïssa, tey néegi teel naa tàng de. ten naa tàng torop nag sa bi la nag nijaay ah yére bi moom moom laa mën a féexloo nag tey wuyu ma euh, Matar Diop woote na fi léegi mi leen nuyu ah. bu weesoo nee na euh, doomam ju jigéen ji ah. moom la ñu maye tey si ngoon ca waan ay dafa yóbbante nee na uh-huh. naa ko waxaal dëkkandoo yëpp ah. waaw léegi nag fa nga ma mën a dem sama yaram neexul mëndu mi laa bëggoo yónni ko ci waay woo ko yónni ko waay yónni ko moom anam moom moom ah fii a sori de ah na moom nu mu mën a sori noonu mën Madube! Buwa Madube! Ya! Ya! Sa papa daanu Lah, La sa papa moo yem rek. Sa mbaxane anam. An sa Ay ma. Mbaxane bàyyi ni mbaxane du fekkee coono borom. nga def sa nga defe ne lii jaadul may wax ngay reetaan moom sama papa daa yambare kase moom moom dama ko laara du lii laal kenn yow lay la sax tan kuy duma kuy yow loolu mooy sama wax ak man yow. loolu mooy sama wax ak yow. parce que xale bii da nga kaa dafoo ci moom éducation bi war laa wax. waa léegi àggale sa fóot. waaye nag loo ci góobee rek na nga ko gar. wuy ma te loo ci boxam na ko yëy. yow eh lan mooy ndeng daal sama kaw. yow man maa fii sama xaal doom woon naa ko mu ñëw naa ko waaye tax fi naan mën na ma mën na ma ma woo bu baax mu ñëw ah, daal su ma la baax da nga baax. waaye baax ko mu ñëw baax. léegi na sa baay Matar Diop woo na ma eh, ak yow sa baay Matar Diop. kii déggoo ko mu naan ma mu ma sa baay déggoo ko xanaa. Eh, wuy ma. déggoo ko mu naa ma sa baay ma taat jóg man ma taat ne nekkul sama baay. waa léegi waa baax na maay sa baay baax na léegi eh, sa baay ma taat jóg nee na. Ah. doom bu jigéen dañ koy may tey ci ngoon. tey ci ngoon tey may. léegi nag dafa wax ne man naa ko wax waa quartier bi yëpp. Ah. dégg nga léegi yow laa bëgg a yónni. dem léegi ñëw léegi yàkkam. léegi léegi dama yàkkam. voilà léegi déglul baax boo demee si kër papa dañu faa nga rek eh foo dem yow eh. kaay kaay kaay taxawal xanaa yàkkamti woo ma wala yàkkamtee nag. waaw kaay taxawal. moom moo ma yàkkam ba pare. waa léegi boo demee looy wax. sam sam papa tonton démb sam papa ma yéen. waaw nga teg ci lan. kese kese loolu. teg kese doo taxaw nga déglu lim lay wax ba nga xam ko boo demee nga xam looy wax. merci moom daf ma yàkkam. nga dëgg wax nga déglu baax. déglu boo demee nga ne ko papa démb. papa papa nee na. Baye Matar Diop dañu a doom tey ci ngoon sa waalo nga wax ko sa papa Mamadou Diagne. waaw wax ko Penn. waaw wax ko waa Garam ñoom sey rek bon pap ñun ñep dañu bari da leen ko wax dal na leen ko wax. eh eh eh nang leen ko wax bo demee noy def. ma demee ma yaru. waaw da ngay yaru. ma demee dama iya, yaru pap ma wax ma ñew ma wax. kang kang ma fëgg. da ngay deglu ma eh. ya, wax la ñu xé entrée ma dugg ma taxaw ma def ni ma wax. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh dindil hobi dindil woo rek doyna ma dindi woo lay def ba ca woo ba. la ba eh eh nuyoog gue lay dëgg dégg nga li ma la wax. wa waa nga yaru ma yaru la waaw waaw eh, ta ñëw léegi lagal papa di aada ah, wax ko ni ma yéen léegi yow kay merci beaucoup yow mii wuyu ma ko wax fii yëpp du lay wax kii xam naa ko bu demee leneen lu bokkut ak loolu lay wax waaye man gàcc gii ay man lii fu ma koy wax wuyu ma lu ma ci góobee gar ko ca te loo ca boxam na ko yëy ma boxam ëf ko yëy ko waaw waaye man du ko yëy mbojam kaan la rek billaahi man bu ma ci boole sama waaye man gis nga kii xale bi dinaa ko yaral sama bopp ndax gis nga bu fekkee bàyyam ji kese faalewul gàcce te man gàcce damay rey. Asto. naam. kaay. yow Asto leen rek laay laaj xanaa yi du benn. de loolu man maa ci man mi xawul dee fii ci biir toile bi nga xam ne yaa dee wala man. ay eh, nijaay ñebe kay ñebe rek kon dafa am ay jiiri ñebe. xawna de dee suba ba léegi maa ngi ci toile ji ah da nga dagal ñebbe ci dafa dang ñebbe da koy def bu woyof pour mag ñeex bu woyof lay doon mo baax ci mag waaye bu nga xam mën nga koo dang oyof dong nga bëgg waaw naa la dafa ñebbe ah man da loo bëgg yàlla day jàmm nijaay uh, wuu ñebbe ji wérle de ñebbe ji de wax tey jii musiba naan ci réew bi dinaa ko salaamaaleykum. maaleykum salaam. lu muy mel ne ku ñu doon dàqe. Eh? sama papa ma yéen ni. ba jàmm la. waaw li ngeen may xoolee ni da ngeen mi def nànk ngeen may xulli seen bët yi. sa réew a ndegoo ko na nga koy mel sa kër papa. waxal li la sa nga fi ci sa sama papa yéen nga am sa baay ak yow. sama papa moom yéen sama papa moom yéen. ah nee na bu ma ñëwee ma nuyoo ma ma nuyoo ma fëgg ma wax na ma taxaw ma yaru ma wax ma wax. asalaamaaleykum. wa rahmatullaahi wa barakaatu. di santaate nee na ma dindi barakaatu bi. salaamaaleykum. dama fay yow. maaleykum salaam. nee na. salaam papa fàtte naa ko fàtte fàtte naa li ma waxoon. papa nee tey si ngoon. dañuy takk sa yaay. yaayu kan sa yaay. nijaay bàyyi ko. bàyyi ma waay bàyyi ko nijaay. kii du ma jiitu këram. billaahi tëj naa ma kii ca baayam laa ñu gis nga ñii dañ ma yab ana sama yaay kañ la dee. yow nijaay kii moom yaayam yabu ko de. ah ah ah. li def nga mu tooñ mu maam dañuy takk fee ba ah ah bi allah dafa am suñu bay. nijaay kii xamal na xel mi neexul. non maa ngi jëm ci biir fa laa jëm man maa wax loolu. waaw dama te ñëw fa laa jëm léegi xaaral ma sonn te ñëw. dama te ñëw ni daal ci yow. démb dama gis benn affaire bu ma touché trop. Hmm, dama nan booy soirée laa dem démb. Hmm. mais comportement bi ma gis ci jigéen ñi légui non jéggi na dayo trop. Hmm? Hmm? mais limu fa gis xalé jigéen war nañu xolaat seen bopp. normal booy jolin goo xamante ni non demul quoi. alors loolu demul. déglu ma wax la degluma yow xam nga indi nga sa bopp ah pour yow pour la ngay dem soirée démb te tàggu woo. dëgg tu as raison tu as raison. <laughs> c'est normal. du du fi mu ko teg quoi du demoon soirée pour pàate ji wala pour defi benn affaire. mais nga tàggu eh, wax na la dëgg. loolu moom dëgg la mais xoolal loolu nga wax dem bi mhm. mais gis naa xale wu jigéen boo xamante ni ah gis nga la mu sol sëgg moo tax mu toj dëgg bi. exact exact moo am mais xale jigéen il faut que ñu xoolaat li ñuy sol quoi mais mais mais pour lan. en tout cas bàyyi leen xale jigéen yi ak i jigéenam ngeen ba pare li ma gën a neex ci ñoom xamuñ ku leen bëgg xamuñ ku leen bañ. alors bul wax loolu loolu duma ko nangu. waaw ndax ñun xam nañ ki ñu bëgg ndax yéen a ngi nii toog. waaw non waxuma leen xam ngeen ne yéen ah, da ngeen a taxawee côté. c'est lu ñuy wax. est-ce que yaa ngi comprendre. Mm-hmm. l'amour ne se dit pas. Mm-hmm. ça ne se comprend pas ça se vit et bëgg nangam nangam nangam. c'est que xam nga lan mooy problème bi mm-hmm. bëgg dafa valeur valeur bi mooy la nit boo mënul apporter dara ci dundam non amatul sens quoi. non le sens. parce que su may génn ak yow. damay xool ci côté bi nga manqué la. côté ah. aussi nga jëm ci côté merci beaucoup malgré kenn matul. oui mais mais buñ côté mais mais mais tax nit sax dama bëgg dama bëgg ñaari fan ñett buñ dund ak yow buñ ko amul ci yow ñi balax ba pare sa waay wuy ma ba pare fu ñu toog di yàq sa der bëri na ci dégg nga li ma gën a neex ci ñoom xam nga ni sikk bi gis nga déglu ma wax la gis nga góor bu amul woon jigéen du bon hmm. yéen doo nga tax jigéen ñi di bon may leen ñu nag alors léegi pourquoi tort boobu wuy ma xamul lu ma gën a neex ci ñoom hmm. xamuñu ku leen bëgg xamuñu ku leen bañ heh heh heh heh heh heh heh heh heh heh de heh heh heh heh heh heh heh heh heh heh heh heh heh heh heh ñu sarax ngir heh nga heh ñu heh heh heh heh heh sama heh heh fi heh heh heh heh ngeen rek. heh eh heh yow heh mënatul heh heh mënatul waxtaan ndax yow heh heh heh heh heh heh yow fu heh heh heh yow dama lay jaay rek jënd heh heh heh ci heh heh heh ci heh jaay la jënd fas. déet si sa morom nekk fi xamul leen ni avance seen waay. dimbali ma yéen ñii yu bon ngeen. waaw yow fii sa morom dafa ne mu nga naan caga. ñëpp da bëgg a caga yow mënoo ñu may jàmm pour yàlla yow may ñu jàmm quoi. <laughs> leen dugg ci kër gi de bu leen dugg ci kër gi dafa jaaxal na ma. gis nga booy bi man vraiment daf may déranger quoi. alors bu awee fii rek du ñu am jàmm du ñu am lu ñu neex. loolu du sama problème de c'est que xam nga lan mooy problème bi parents yi ñoo war a xippiwaat xool bu baax ndax doom boo ko juree pour man yar ko ci biir kër gi mais kii xam nga ne yaruñu ko wax leen dëgg mais réew gu ëpp moo ko yóbbi li mu nekk mooy lu ëpp ëpp noonu nag ci laay ñëw yow réew na gu ëpp xanaa xamoo day indi dof ah mais mais c'est c'est c'est incroyable. alors yow loo ngi gis moom doxul moom du sonn mukk moom doxul dayee sa waay li ñu wax dëgg duma nelaw te yeetalu loo ma tey Viviane ndax dañoo bëggante duma nelaw te yeetalu loo def nga nekk ak man ma nekk ak yow ñi war di coow fu ñu dem bàyyi fa coow duma nelaw te yeetalu loo ma ndax dama bëggante fii moom rek lañ xaar bale naa kër gi yàlla ya pare na defar naa bale naa kër gi raxas naa duusi bëgg cee boole raxas ndab ak fóot mi dem marché taal añ sama nijaay eh, eh, mi war na maa utal jàng lenn laa lay yëgal ana man dumbe xam nga lu lay yëgal moo seen doom bu ngeen ko yor naa wala jinne te na ko yor ana mu caat laa wax njaay mu caat a ci biir man la ah yow laa sama kër li wut sa kër li nga def man dume bu dee mbiram mu dume moo la a jog lu mu wax maa ko wax loo. wax ñoo ko ko wax loo. merci ah kon yow yaa war a wax man dumbe mu ñëw sama kër ni ma dañu may sama yaay sama yaay kañ la dee. déet déet démb bi mag day wax dëgg. yow mii yaa waxul dëgg. del wax dëgg man dumbe waxuma ko lool dama ne ko boo demee si kër baay démb nga ne ko saa papa nee na sa baay Matar Diop ca waalo moom la ñu may doom tey ci ngoon loolu laa ko wax. xale du fen li ko wax loo. mag mag du fen. lu mu wax yaa ko wax loo. lu mu wax li nga wax lépp waxu ko ay saa ngeen du ma bàyyi ma fen mag du fen ay yow du ma sa morom waxal ak si lii lu kenn xamul foofu la waxal ak waxal ak ma rek bañ a wax ak moom yow li la naqari teguñu la ko boo sa ñoon damay daagu sa biir kër ni mu waree te ya, mënoo kaa am ci iya, kan? iya, man loolu kay loolu merci beaucoup voilà soxal bay bëgg a dee yow looloo tax nga dof bébé ba mayel noppil bu ko faale bu ko faale man yaa jëm sama tamaate yow laa ci gitu, doroo yaa ma saf merci beaucoup yow li tax kay sa kër nga ñàkk fayda parce que c'est kii la yilif yilif ma ko yilif lu waay rey. seen loxo yéen ñaar yi lay wala sa loxo yow mii lay nàccee eh, yow. merci beaucoup eh, ay eh, yaa war a mesure say parole yaa war a mesure say parole xam nga lu ko naqal. waaw da ngeen a maaseenoo nekk ay xale. leelu seytaane la. leelu seytaane wala muy leelu jinne boo xam ne quatre para la fi jaar waaye li du leelu nit normal. xam-xam la ak alal. voilà xam-xam boobu moo tax nag man du ma am xaalis nag du am dara waaye man du ma dina am xam-xam nek ministre wala président wala député té boba do ci man tus man dumbe de jinné té nako yar jinné nak mënu ko yar yow sax mënu ko yar ba jinné diko ko yar wa ba ma gis ko wa faalé ma la deret bop momi du may bokkam borom buma laal fi dé buma la laal fa dara sé dara wóor buma la fekk yow moto kilifa eh fils le camp kan ku motul kilifa day té la am bee jaar man ngeen wax fils le camp fils le camp sama loxo bi top ko damay mat waxal <laughs> fiche le camp do mat waaw yow seytaane bay bëgg dee mënu be eh, eh, li mu wax fii yëpp dëgg la dama laa bañoon a toroxal ci kanamam waaye da laa leer na li mu wax dëgg la sunu doom ji yaroo ko jéemoo ci moom benn éducation mënu be xameewul moroomu ndeyam xameewul moroomu baay te loolu da nga cee war a wax yow da nga kaa war a lijjanti ay sa mënu be xale la bàyyi nag bu fi nit ñooy dama attaqué nga nekk naan ma mën dumbe mii da koo war a yar da ngaa war a dugg fii da ngaa war a génn fe eh xam lu ma la yëgal mën dumbe seetaan maag waa bi xale la xamul dara mënu ci mom tous wa léegi dañ baye wax jooju dimbali ma nga outal ma jank même bu fekke ya, bu 10000 mu jàppale ma ci liggéey ya, bi metti na trop déggoo ma de yow ya, jànq bu jinn sax do ko am nga naan bu 10000 yow ah, man ma daan taba taba limay taba taba do nga na ma jank bu 10000 han ah wala ngay baye ma lay raxa non graw baye ma raxas graw man mën na liggéey bi ah kon maa ci bir man moom wor na man liggéey bi mënu ma wax ba mu outal ma jank ki nan ma jank bu jinn sax yóbboo rek ma jéem a raxa sama bopp xam naa moo luy defal waay yàlla bi di ko yàlla jox yéenay joxe may nangu waay yàllaay fay ana kuy dimbali jaamu yàlla bi kuy dimbali waay yàlla ci li ko yàlla jox yéenay joxe ñooy nangu waaye yàlla mooy fay yéenay joxe may nangu waay yàllaay fay waaw waaw yàlla xeebul yéemul kooku naar. waaw kooku Pape. <laughs> ah man day maa ngi nii. fay waay. ah yow naaje nga di. ah naaje naa moom. exil. waaye nag sant toogal. Ah. ah naaje nga lool. waaw waaw waaw. nga naaje na nga def nag maa ngi sant yàlla bu baax naka liggéey ah tàng na moom tey moom dëkk bi moom de moom tàng na lool daa tàng sax waaw waaw waaw ah ah ah ay tane ah man de tey ah tey moom doxul loolu ah ah waay waay daa tekkaaral lool waay waay waay yaa ngi yëngal weccat waay jëf de tax ko bari waay yaa ngi yëngal weccat waay jëf de tax ko bari ah, ah noonu la ay ah ay dërëm ak ñaar ah, dërëm rek la de baax na waaye man ah, moom yor naa yu xaw a dis tuuti ah waaye amal noo def ak man waaye yow moom xam nga fu ma jaar am na ma def ak yow ah waaw dama deex maa yaa ngi si waaw waaw waaw waaw ah, ah kon nga ne tey demewul noonu ci yow tey de tax ko demee ah, noonu ah man day démb sax day neexoon na ba amoon naa lu ma denc ah waaw ah, ah loolu moom baax na amoon naa lu ma denc ah man de tey moom doxut moom ah nay dox nag daa war di dox naa yaakaar li ma naajee tax nag ah yow yow loo naaje naaje maa la gën a naaj nag te yàlla wante dañoo xaw bari ah ah day yëf man yoroon naa fi ñetti téeméer. yow mii. Ah, ah. da ngeen di dox. ah, ah. bu doyee xaw ma doy dem. démb laa ko wàññi woon. ah ah waay waay waay waay. waay waay Pape waay waay Faye. ah ñeent a ngi de. ah ah waay Pape lii bari na di ko la bàyyi. ñoo ko bokk yow mii teguma la lii kat. <laughs> ah waay ah waaw maa ngi lay sonal kat Pape. waaye sama xol ci boppam moo ma ko teg. ah waay teguma la lii nag lii. <laughs> dama dama laa bëgg. teguma la ko de waay Pape bu la bu la ci bu la ci fekk waay Pape. ah su ma ci fekkul ma ci fekk. ah waay teguma la lii de. béykat sax yoroon naa ko. ah déedéet déedéet li bari na li bari na li bari na. ci dolli dañ ci dolli. ah léeg-léeg li bari na ci dolli dañ li bari na kat. mbaa ci jàmm ay Pape. ah xorom kat ah jar na suukar. dara yombut. ah waaw. baax te sax nag yow ku a baax. ah waaw sax. waaw waaw jërëjëf waay Pape. ah xam yokk xéwali. lépp lu yaay borom. ah. su dee paas kër gi génnee kay ci des lépp yaay borom njaboot gee ñu sonal nag di wax ak yow de njabootama sonal waaw loolu moom dëgg la moom njabootama njatt daa moo paap mii lu muy def nii yow paap mooy fa paap mi moom yow nag paap de war ngaa xool nit ñi yoo xanaa gisoon nit ñi ci tali bi ah nit ñi yaa leen li ngay wax ñaaw na xanaa du ñuy nit rek. ah buñ dee nit nag daal yoo xam ne ah, daal jekkul nag. jekkul jekkul ah ah yow joxe woo lu may ñeenti téeméer de raay man de papa ba ma joxee junni xamu fu ma jëm. da ngaa xam ñeenti. ah moo ah, ah, da ngaa xam ñeenti ñeent rek la nag de. ñeent daal la nag. junni du ñaari junni de ñeent la naar naar yow nu nga bëgg a nekkee man man day day miti. yow mën nga ne du ma la teg loxo yow wax rek laa mën a nekk yow rek di la jox. daa doy sëkk nag. ah loolu moom Ah, comme nan mbokkum jullit dimbalee ñu dem njaboot ga ca kër ga ñëw ñu fi pour raaye ah comme nan nga ko gisee baax na na lu waaye am te attan yàlla xeebut yéemut kuy dimbali jaamu yàlla bi ci lu ko yàlla jox yéenay joxe nangu waaye yàlla mooy fay yàlla xeebul yéemul loolu moom dëgg la yéenay joxe ñooy nangu waaye yàllaay fay ah.

yéenay joxe maa ngi nangu waaye fay. waaye am te attan. yàlla xeebul yéemul. laay taxaw warum mu du rek ma bari bi rose ma jënd comme sa boss bi bàyyi nga man de rose moom mau sama couleur mooy couleur ñëpp nag rose de moom laay rose booy seet ñun ñëpp moom lañ bëgg waaw gis nga gis mais eh, ya. eh bul dem yow da nga faat xam eh, nga waxoon oh, naa la prof anglais bi daf ma doon taxaan yow prof yi boo leen moytuwul waaw waxuma loolu de mbaa bañ nga bañ lu may dox di bañ da ngaa war a bañ mau non yow doo ma dimbale du xaat kan, na ma te nangu naa yow daal nii rek ku ne la dama laa rek nga ne ma ay ca maa ngi gisoo la loolu de ah. yaa ngi ci ñaata fi ne nii. après dadi. Mhm. usu. ak mhm. papa. Mhm. bu ma ci boolee prof Lamine. ay ah, tamit muy kaat kase. muy kaat waaw instant bi kon nam moo dara. lu may dox di nam mu dara. <laughs> dafa ba mu riz moon gis nag. ah dégg riz moon gis nga bëgg koo def. moo waaw ah, dama la laa toogal yow yaa ngi ci ñaata yow. man fi ne nii maa ngi nii. maa ngi ci 3 rek bàyyi ma ma xale 3 3 dina ma arrangé. <laughs> bu ma xas nag doomu de yow yaa ngi ci 3. waaw yow benn laa la ëppalee. ba nga ma ëppalee benn nga nga xam ne man maa la tane. wuy ma bul sax débat ci loolu. waaw waxuma loolu yaa ngi séen li may séen nee na yaay dañ koo xaral dënn bi. man de wax ma loolu bëgg tay baas gi mu bëgg tay baas man moo may rey. kii lan moo ko teree di sol tubay di dangal di toj di paccal ba mu gis nga yow waaye xàpp waye yéen ngi wax rek ñen di kebel rek ça va ñen ya. di rata rek di melne bay bu ma ci ne yéen eh, soog a wàcc rek yow li rek tax ma yow ñoo dédé dama xam ne kan mbedd bii dañuy soog a wax rek wàcc rek nek fi di wax ah. Ah, gis nga de di soko wacc wàcc yéen a ci jàng bi waa ah, ñu ci jang bi jang bi dama leen ci boole farantu dé <laughs> waxuma lo dé li nga paccal am nga gis nga mo dédé da ngay ne ci salam alaykum waye yow eh kii ni ma ko ci sa morom newu fi de dégg nga. ak yow sa morom nekk fi. wax nga may toog ko ko façon woté fam bi mu watu. sa watu bay man nga sa watu mën nga sa watu. waaye mën nga yow yaa ñàkk fayda yow bu ko door ki ki dof la de su lay door ngay dox ah ma wat wat yaa ngi doon dof yow yaa ngi doon dof sa morom newu fi. yow tamit sa morom nek fi yow ñi jox xamal ne da nga xap xel nee na nee yow dangal doo tëj doo paccal nee nañ xoola da ngay doon sal tay baas xapp xel kese <laughs> nee nañ ba pare ah nee nañ ñoom dañuy am ay quatre far kii nee na am na quatre far kii tamit nee na am na quatre far kii nee na buuba a ah, laay gi ak bàcc béy waaye ñooñu boo xamul ñooñu noonu ay bànn lañ danañ jàpp dalay def tiki daam dax daam dax xapp xel duma sa morom de wax nga ma ba pare noppil ma wax li may wax gëm nga kii ñëw gëm naa ko ñëw gis nga kii doful de daa réew rek merci Eh, réew ma. yow boo fi taxawee tey di ma jëw du ma metti. ñëw barke Demba Ndiaye nga ñëw ma ñëw sama ganilaaw bu bees takk ma goro fin ko kaw ba ci suuf. fay ñëw trente mille francs sologuma ko nga ñëw am xew di jooy ma ne la doomu nday jëlal nga pince nga sol. waaye lii nga may fayee. eh wuyu ma dimbale ma laa wax. yàlla doon maye ndimbal foo nekkoon. yow yaa ñàkk kese sa bopp bi nga mel ni toolu far. yow noppil ma wax ak kii yow li ngay def. du sutura ndax ba mu la koy àbb fekkee ma ko keneen ma fekkee ma ko waroo kaa weer déglu ma yow moo amoo loo di lu amoo loo wax barki démb nga ñëw jël sama périk ñëw jël sa périk ah. man nga fekk xam ne foo ma fekk suba laay tax suba périk bu njàmb yéen a woon gis nga yéen ñaanuma yàlla mel ni yéen gis nga ànd ak ku bon da ngay bon ni moom yow nday kenn xamee loolu woon nday jàng nday farantu xamoo ko woon nday réglé bébé ah <laughs> waye legi nga top ki duggal la ngay jew ñew di farantu ñew nday déglu ma wax la nday wax nga ba pare cbe xew fim ne ni ah cbe xew waaw waaye dama rek dañuy xew andal lo ci goor bi garu ko le eh, eh, eh, jeex na xuloo day jeex xam atti la xam ni def ma cëpp cëpp fi def ko fi nangu sa karaw nangu sa karaw yow nga def seytaane waye ma yag yag nañ ma ko wax yag nañ ma wax li nga meuna wératé yépp lu wératé yeen yeen yag nañ ma wax dóor ko dóor ko dóor ko dóor ko doo ko dóor. Eh, ba ma wax sama eh, fula da waaye nag may rey xool ni mu tëndee. nga da ngay nañ ma kaa wax ñu naan ma ma nday foo leen fekk ñoo ngi ngawti ngawte am mari indil mari am mari indil mari waaye dingeen ma cëppee. eh maa te sama yëre nga indil ma ko. yow ma kurusee ma tey lay fajee gàcceel kon doo ci jot. da ngaa ah waaw xam nga lan lañ bëgg nga may def boo amee li def. bala ba ngay jàngi ma futti la. futti toroxal la ba nga ne ndox bu foofu dégg nga. ndox bu foofu yu bon yi jaam yu bon yi. sa bopp bu ñàmpe. doom day fi mu ne nii kii daa tàng sama xob nañ dugg ci biir naan ndox. yii man kay moom fu mu toll nii rek. nañ dem rek nga naan ndox yow tamit nag. ñu ngi soog a génn naa nga dem. eh ma caade. Matia. yow lan la laa gi Matia taxal wax ak man. yaa ma gën a déggaatoo. Matia maa ngi lay dégg. yaa ma dégg Matia. fas ku kay dawal ne ko baax na sa balaay mbëkk miir ma. te yaa fi mën yaa fi mën te xeexee ñu yónnee say dàll mënoo fi dañ lay jàll. waxoo dëgg de yaral sa doom ji. yaral ma sa doom ji. ci nii a ci naa maay baayam fekk ma ma toog ak man ak sama njaboot. taxaw ba mu taxaw ne Baye Ndiaye yow laay waxal. waaw. ah sa maam sa baay dee sa maam dee sa doom war na ma yaay baayam waaw bis nga bu ëllëgee bu ko defee bu amul kilifa jinne doon kilifa bu ma ko defatee mu lakk lu bodam waxoo dëgg bis bu ma ko defatee ma xaj <laughs> waaye ah, léegi ma naa man ngay wax naa yaa ma dib xaj laa wax yaa ma dib xaj boo ma ko ma def la lu ko ay yow waxoo dëgg la waxoo si tee man ngay kii ay kii bàyyi ma kii waay booy bàyyi ma kii bàyyi ma kii bàyyi ma kii bàyyi ma kii boobu bàyyi ma kii boobu. ñeppali boobu. mu ndaw joolooli kerek la. jéggal ko jéggal ko xam nga yow. ku nekk daan doon naa lay booleel. waa jéggal ko ku nekk daan doon naa lay booleel. daa la boole waare bi ne bu ñu gën a doole ba ngay bëgg a dee. jéggal ko jéggal ko waaye yow. xaw naa xooray waaye yow. ana mbokku jullit buy dimbali waa yàlla bi ci li ko yàlla jox yéenay joxe may nangu waaye yàllaay fay yàlla xeebul yéemut. lu waay am te atten yàlla xeebul yéemut. waaw waaw yéenay joxe fay ana ko dimbali jaamu yàlla bi ci li yàlla jox. waaw waaw yàllaay fay de loola te moom lañ lay fay. ñu dimbalee nu taale ji bañ. papaam yàlla jox la. ana mbokku jullit bi ah, dimbali jaamu bi ci ah, li jox. yal na la fay. amiin yal na yàlla amiin def la mag te ngay mag ma am ñam. jërëjëf alhamdulilah waaw. ana mbokku jullit bi dimbali waa yàlla bi ci li ko yàlla jox. wallaay ya, fay de. yàlla ya xeebul yemul. Ya, ku nu mën a dimbali ci luñ taale jib añ. yóbbul njaboot ga ca kër ga. waaw. aywa déggoo ma de. ma ne tey sa njambaan neex. yow mi jël pap def ko waaye tey sa njambaan neex.

yow yow laa waxal gis naa jox nañ ma nen am yor naa nen dañ ko xaatim ba mu fees teel alxuraan lañ ci bind. lii yow ko réew nga wóor na ma ne ay ay ay ay mbalagal a tax di wax. bàkk yàlla dañ kaa xaatim. ah billaay dañ kaa xaatim. dañ koo xaatim. dañ ko bind alxuraan ba mu fees. la nen bii kay moom. waaw dañ ko xaatim dañ ko xaatim fees teel. kay lii kay ko. <laughs> ah lii ah. dañ ko xaatim kay. ya <laughs> lu waral lii. toj na ko nag. paa <laughs> bàkk da nga yow nen bi ñu xaatim nga toj ko da ngay dof <laughs> eh, eh, jugal fii yow da nga ko toj na koy toj na rek ay déeg déeg déeg lépp ci loxo yàlla la man day naar waaru naa lii lépp waa ñun moom lu ñu jàppee ñun daal boolewul ñu si nit ñi lii lépp ñàkk ñoo jox suñu kër ay nen yi ñu xaatim ak ah? ay foo bi yeeg ginaar yi ñu sax dañu koy faral li ma lay wax mooy lii lépp ñoom ñoo nu ko teg rek waaye man mi ngay gis gis nga sunu morom ñoo xam ne danoo jàng ba am seen maîtrise ak seen licence ñu war dagal a daggal billet waaw kenn daggalu leen ko te amoon lu gën a dul di yalwaan dan noo beddi te ci askan wi lan bokk dañ ñoo de man ñi di wax ak yow day jàng naa ba dem sem deux de war naa mën a liggéey liggéey yu bari de waaye dañ ma bedd de moo tax ma tal ko ci yalwaan ji rek ma dal mom wax dëgg yàlla mom ñaanuma yàlla samay doom dund ko li ma dund moom samay doom ñaanuma yàlla ñu ko man mi sama njaboot duñ ko dund bu soobee yàlla de dina ci taxaw lu ma man tey dañ cee war a xeex ñun war a gouvernement bi daf ci am fan de responsabilité bu reuy mag bu sax. xam nga nek goné am 7 ans ñu duggal la l'école. wa ngay lambatu di jang di lambatu di bind ba yalla defal la nga am sa maîtrise ak lepp ban war la may bié nga nga dem égalé sam jang am sa liggéey. suñu amul li ñu gën a lii duñu ko def. duñ toké ci territoire yi yalwaan. waaye nag doomu aada bu ñuy saraxé won na ni mëna saraxeet lu am valeur. waaw ndax li ni mom wax deug yalla jaadul te bayina ko ak yalla yalla nañu yalla atté gis nga ko dé ni rek la mënu may ak ñun ñun paay daal mu ndumbe daf ñu lëjal huit huit huit huit man nag maa ni paay il faut ñu dem ba ci chef de quartier bi. sama quartier waaw. sama waa ji waaw. mais si ma tey grand place bi wéet na ko dafa wéet de. mais nag booy dafa mel ni paa bi xorom si de. waaw maay paa moom moom dafa comédie moom. père Deme moo yor xorom si de. non si gëm naa bi si absenté rek tey grand place day wéet te gis nga. ma ne booy dama lay xamal lenn de. démb nekku fi de waaye nag maa ngi fi.

benn jeune boo xamante mi ngi ci koñ bi bëgg a fatt nit ñu quoi mais il loolu buñ ko réglé wul du sotti il faut que ñu réglé ko. li li yéen dong la fatt mag ñeeg jigéen ñeeg góor ñeeg ñëpp la fatt xale boobu fatt nañ léegi nag démb bi daa doon xaar booba tey maa fexe ba gis ko léegi xam nga nu ñuy def dañuy jóg dem. ñu jaar kër démb bi ànd ak ah, moo ci bu ah, moo ci gën parce que. toog wax dëgg yàlla nelawtuñu ba yaandoor. en ñoom ku ci nekk xam na ci ah. koy booy bi. xam na ne booy bi. Hmm? jot na jëflante ak ñoom ku ci nekk xam na ci ko. Oh. kon donc ñun bu ñuy bu ñuy jóg pour jéem a satisfaire seen besoin ñoom. nanguñu ànd ak ñun mais day nuru leneen quoi. benn day nuru leneen. wala ñoom bu ñu ci mënu dara ñu bàyyi ñun boog ñun ñu def. suñu loolu xëy na moom démb bi lu ko loolu rek xam nga lan la père temps bi xaarul kenn il est temps ñu dem dem chef de quartier bi wax ak moom. ba tey man ngeen parce que ah. Moundou Mbaye moom waruñu jaaxal quoi. ko waruñu mën a jaaxal. kon sama waa ji xam nga nañ naan lawul bi après deuxième bi sax bu ñu ko fi xaar nañ dem quoi après. non bi nañ ko bàyyi ba dem ba ñëw. après ñu ah, ah, laa léegi saa yi laa naa ci yow. waaw xam nga sa papa de doon man dama laa bañ. man nan laa la a bañee te ngay sama doom. xam nga mais lii nii nga def nii hmm. dama cee kontaan ndax ah. man munu ma woon a dem marché hmm. munu ma woon a dem tour fu ma dem ñuy wax si hmm. wax ñu ne yow da ngaar yow du ma am lu ma neex may xuloo di xeex ci mbedd yi léegi yow boo yaroo man man nga ko defal sax nag oh. léegi dinaa mën a génn dem fo ma neex kenn du ma wax dara kay li ma lay wax rek uh-huh. kii moom boo xajoo rek xajoo ma waaw oh, nijaay nag yaa gën a xam ne ma dama kaa mës a xajoo dañ doon jote nii nii rek mais yow sama nit nga sama doom aw ma ah. beneen doom budul yow waaw ñëw lay tiitaru yaay sama xarit moo tax it ah. mënu ma woon dem marché mënu ma woon dem tour waaye léegi fu ma neex dem te xam ah. naa ne li nga wax dëgg la changé nga xanaa xamoo tànn waa bi dañ maa bañ kese waaw dañ laa bañ man dañ laa bañ de waaye nag xolal ku la bañ boppam la ko def waaw waaw ndax gis nga nag leena dinaa la ko xamal hmm. gis nga wax ju bëri hmm. jigul sax bant waxuma la nit te yow ah. man wax ju bon ji attanoo ko yow sax fi nga daanele foofu noonu ci garab googu noonu laay wax ndax garab deng nga maam nit ñi dañ koy wax di xam de asmana nit ndax cago tembe gis na fa garab go xamne ni si nii guddi gëm gudd foo toll ci adam di ko seen ah. ndax gudd ba ko gudd gudd ba mënu la ko wax nit ñi diko xam de yow ya topp nak woni gay garab go mum fu ne ca cago tembe la ko gis de <laughs> cago tembe cago tembe wala tante man dem na fe ya ah. guy mbam guy mbam ak njalaxaar waaw yow kañ nga fa maa ko gis man ba ma fa demee. ma gisu benn picc boo xamante ne ah. benn laaf bi. Ah. toll ni diggante Thiès ak Dakar. waaw <laughs> maa ko gis. <laughs> waaw léegi yow foo mos a demee Ndialakhare Guimbaam maa ko gis. léegi yow. Ah. picc boobu an ban garab rek lay taxaw. sama garab papa bi <laughs> sama garab papa bi <laughs> garab bu gudd boobu noonu xanaa xamoo tante. réew na dugg na. bon déet réew na dugg na man yow laay ngand ngandaloo. Ah, waay barki yàlla su ma génn ci koñ. Ah. damay def nii naan sama tante ah. tey koñ boobu sama tante moo fi gën a barki yàlla lay wax. bul wax cëkk yow ah. wax sama tante. koñ bi ba mu daj moo gën a nekk diriyanke. waaw koñ bi ba mu daj sama tante moo gën a nekk diriyanke. waaw kay waxal eh, eh. loolu. ba nga demee bay ngan ngan loo sa tante nag. Ah. mën nga maa ngan ngan loo ndax golo ñaaw nag ba am na nii mi ngi nii. <laughs> waaye nag lépp nee ko la. la xam. la kay la. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si na ngeen def. salaamaaleykum ñu ngi leen def. jàmm rek. fa jàmm yéen. jàmm rek maa ngi fi rek njaboot yi. jàmm rek. dara salaam Ndiaye. naka xale yi. xale yi ñoo ngi fi. dara si jàmm. naka soxna si. ma nga fa ma nga ana xale yi. ñu nga si jàmm. xale na ngeen def. ñu si jàmm. naka waa ana góor gi a ah, góor gi de da doon julli. Ah, waaw waaw nga seetal ni ko bu dee kii bi. dañ koo soxla woon. da ngeen ko soxla woon xaaral ma dugg woo ko. tax. ndax chef de quartier yi. loolu mooy seen rôle. Ah, aleykum salaam Ngom Ngom waaw jaay jaay jaay Ngom gën naa laa gis de. waaye maa ngi nii rek. ñu ngi jéggalu de ndax waroon nañu fay yebal nit xamal la ni ñu ngi ñëw waaye dañoo tiit. fi ne tiitaange gu metti moo ñu jar. ndax kii dégg mu cam doomam jii daal bi wegul mag wegul xale wegul jigéen wegul ko neex lay ca kenn faru ko ci nag dul xam nga ne mu caat mii di suñu moroom ñun ñi ñépp bàyyi doomam ngi mbal kaw mbal suuf def lu ko neex wegul góor wegul jigéen wegul mag wegul moom daal daal dafa mel ni moom moom koñ bi saaga ñii dóor ñii xas ñi def lu ko neex sonnal ñu ci koñ bi moo tax suñu délégation bi ñëw te nag lu ñaaw xajul suñu diggante yi mm-hmm. ñun ay kilifa lañu ci mm-hmm. yow yaa ñu doyoon ñu fal la teg fi kon lu ñu mën a métti mm-hmm. dañuy ànd ak dal ba ñëw wax ak yow dañoo bëgg nga woo bàyyi wax ak moom wala nga woo xale bi wax ak moom ndax barki démboo njaay mo ci mujj yàggul dara ñoom ñii yëg nañ ko ca gox ba sama kër la ñëw fekk maag sama soxna toroxal ma dem ba ca baayam di ko ko wax àggalagu ma sax li may wax mun ma fulkan door ci biti lo rafet na rafetul rafetul waaye ñun ay mag lañu mhm. jàmm daal te nañ dox ba sës loolu tax ñu ànd ñun ñii mhm. ñëw seet si la ah Mat Diagne waaw loolu tax sax ma ne ko nañ dem ci chef de quartier comme yaa ñu yilif yaay suñu kilifa. xale bi la lëjël nañ ci koñ bi lëjël nañ ci koñ bi lillaahi wa rasul loolu ñu ci mën a dimbalee nga dimbalee ñu ko lillaahi wa rasul xale bi lëmbee dina quartier bi yëpp yëpp yëpp nga dimbali ñu ci rek papa ngeen na quoi waru leen wax sax ñu ci teg ba mais wax bi dañ ko ray rayal te wax bi waruñu ko ray rayal quoi vraiment chef de quartier sonn nañ trop ñun seen yi yeewoo ci koñ bi Mm-hmm. mënatunoo dox ci koñ bi sax xapi nice mm-hmm. fu ñu toogee ak sunu morom yi di waxtaan sax dañuy sant ne mi ngi ñëw mm-hmm. dañu bëgg ngeen dimbale ci ngir yàlla ak yonent bi dimbale ñu ci bu leen ñu ci dimbalewu nag ñu dana jël suñu matuwaay. génne ko ci koñ déet ay gune ngeen yim leen placé xale def ngeen la leen war kon boog am na loo xam ne du waxi xale sëñ Fall. yaa suñu sëñ Jaañ mi dama leen di gërëm. ndax mosu leen fekke lu ñaaw. Euh, Lina, dina ko def sama soxla ndax koñ bi lu ñaaw musu fer te du fi amee euh, man man nak lool man musuma ko naané ndox que nga ba na sax doguma la ndax waro wax kan ma tek ba rat na sama papa yi do hmm. waye man damay damay wax ni parents yi da ndax euh, boo seetee di dajale say doom di toog di waxtaan ak ñoom dafa amatul di toog réunion de famille waxtaan ak sa njaboot génne leen ci lu bon dugal leen ci lu baax ndax jàpp naa ne bu ñu ko yoroon ci biir kër papa du génn di def li muy def ci mbedd mi te chaque jour bêtise bu muy def noo di wute ak bi muy def suba xoolul ne kii mag la xoolul ne kii xale la xoolul ne kii xam na dara xoolul ne kii xamul dara di def di n'importe ko en tout cas buñ ci dimbali dinañ ci wax dëgg yàlla. def ngeen li ngeen war a def man nag léegi bàyyi leen ma def la ma war a def ndax looloo tax ngeen fal ma hmm. dama yoo bàyyam wax ak moom mu ñëw fi ñu lu jënti ko hmm. hmm. an sam

man naa sol sama daal dem seeti baayam su ma demee ci baayam dinañ wax waxi kilifa ma ak moom. jërëjëf ndax koñ bii moom koñ bii li ko sancoon ah. du xale yu ndaw yi ma koy kii. jërëjëf def suñu këmte laay kàttan. jërëjëf Diagne loolu am na jërëjëf sant jërëjëf soxna si waaw xale yi jërëjëf. waaw waaw waaw jërëjëf waaw kay jërëjëf. jërëjëf Ngom waaw kay. soxna si nga nuyu. sama xale yi jërëjëf waaw sëñ Fall noonu ma soxna si nag. dina ko dégg dina ko dégg waaw kan mooy Mëndumbe. Mëndumbe xam nga euh, Mathiat Mathiat Ndiaye. ah Mathiat. waaw mooy doomam bi mooy taawam bi. Ah, ah, ah Ndiaye nee na sas nañ la ñëw nañ

ma ne salaamaaleykum maaleykum salaam. ndeysaan bébé la ci gone yi. waaw waaw mais Aïssa la ci mag ñi. loolu am na Siri Pa Mathiane Ndiaye. aywaay Mathiane Ndiaye waay Sénégal Ndiaye la joor ba ne ko looy doo bokk ak bi dafa ne yàgg. ndeysaan yàgg bébé Aïssa mii da ngeen a yàgg. ndeysaan barke yonent bi. aywaay waa koñ baa ngi naan daf laa daf laa awaleel feeru paase. mais nag leel bi leelu naturel la. ndeysaan barke yonent bi. da ngaa judduwaale. billaahi bébé Aïssa lanu seet si. Yeah. waaw moom yàlla ak yonent bi rek ko ko saf ndeysaan kursam gi yonent yonent bi lañ koy wooye koñ bi nekk barke yonent bi góor gu baax billaahi ndeysaan maa la wax lu mel nii eh, eh. waaye nag indil ci sa jom barke yéen eh, lan ngeen wut xaalis ma Baba Thiam Ndiaye yow wax ñoo yow barke yonent bi sa baay jee lañu ko woon ñàkk bañ a mën a def ndax dëgg neexul maye neexul maye na naka weer bi deewagul xaalis amuñu ko tey. waaw maa kontaan ci yow dàq naa leen yow xam nga ne sama poos juróom-ñetti dërëm moo ci ne tey bu ma ko joxoon ñu wéeje ma ci koñ bi du ma fi xaj surtout maa ñi waxoon naa la sa gal dama lay rey neewoon naa la am na fu mu baax nag waaye am na fu bon waaye ah! kii li mu fi fecc moo ko tey li mu fi fecc lii ah! am na nag baayam ah, damaa jugul de damaa jugul de baayam la niru de ba ma cay toll ah du ba nga cay toll kat rek yaa ngi ah daan xanaa xaw yaay. kaay. loo wax. maa ngi nii di leen dama bëgg nga toog ci biir kër gi ba ma ñëw sa tànk yi moom dox rek. yaay nag waxoon naa la ko dippi ci teel sama xarit bi Fatou Faye tey la xewam bi te bu ma demul dara du sotti yëpp sama loxo la ko teg yow it yaay. nga dem bu soobee yàlla bàyyi ba ma yegg ca xew bi ba ñibbisi nga door a dem. yoo xam nga ni boo demee doo teel a ñibbisi fa ngay nekk. ne morom ma lay fekk. waaw loolu am na. a laa xëy na laa. waaw waaw. ma dem dala baax baax et dala rafet rafet. ndeysaan et dala melax melax. waaw loolu yëpp la fa barke yonent bi. bilaay kii këram gi fi la jàngee dagg ceeb. ma ne loolu doo ma ko wax. ci kër gi laay wax ma ne xam nga lu ma neex ci kër gi ñam bi ne na gaañ te ma moom ma yàqoon na yow turu lu si nii. ah waaw ah nga jëli. ndeysaan. ndeysaan maanaam dala baax baax. waaw waaw bàkk yu nekk bi. loolu am chéri Demba Fall. ndeysaan bàkk yu nekk bi. loolu am bu xale daan am. ndeysaan jóg la dañuy lekk riba. dañuy lekk riba baat bi yàgg nga koo def ak ñun. ndeysaan yow boo fekkoon saa boo ñu joxee ñu kët suñu benn baaraam bi ba tey mënu ngaanal. ndeysaan barke bi. tàggoo balaa yi xalaat. gisee yemul borom man fii fu ma koy waxee fekk loo sama nijaay rek man da damay bañ ndëgëm bi yëngatu ndëgëm bi mu yëngatoo xam naa maa ngi dama sonn ndax wéru lan nga may waree laa wax. lan la lan nga may waree. eh waaye eh wàccal ba sànni. wàccu ma laa wax. sa dàll ci ba wàccu ma. wàccu ma wuyu ma macaat nag fii sama kër la wàccal basan gi ba ci lan fii sa kër la ba ci lan waaye doo pousse ah eh bu ba waxaatee waaye bu ba waxaat laa wàccal basan gi ngay wàccu ma laa wax la nga may wane lan la maa ngi nii Matia man lii bettuma ci yow démb la fi bi jóge mokk mu mut te doom des ko yar doom des ko yar waaye nag man lii bettuma ci ma numbe parce que papam yaruwul ah léegi daal mut jaañ ak démb daal lan la fi bëgg a nekke mooy am ma caat andi ma numbe waaw parce que moo ko xamal bëgg nañ ko cëppee yow mii nga cëppe ko su ma xam ma ne loolu nga may du waaye yow lii bettuma ci ma numbe man Ndumbe reewande gi mu nekkee ci koñ bi bettu ma bàyyil gone gi ma ne la reewandem bettu ma ndax baayam yaruwul moo tay ah moo tay réew nag te xamalan la na njëkk boo ma boo ma jokkalatee baadoo di nga xam de dégg ma la wax ay yow doo chef de quartier tous maa ko wax eh xamal ni ngay waxe nag xamal ni ngay waxe doo ñëw sama kër di ma offensé eh xoolal buntu bi soo ko dajjee ma def la lu bon ah ay yara di waaye ba xëy moom boo xëy yàlla rek moo lay mën a fay jërëjëf waaye yow nag waaye yow nag fi nga ma yóbbu dafa nooy lool waaw sa yoonu kër ngi de da ngaa teel a wàcc tali bi nga dama ci beneen ko angal bi bak yàlla fi mooy si yoonu kër ah fi mooy si yoonu kër tali bi dañ kaa baare fële ah waaw xanaa sànq lañ ko baare wala léegi léegi léegi lañ ko baare waaw ah, waaw jox ma samay gët bàyyi nga naan jox ma samay eh, gët lii lan la eh, indi li nga yor eh, ban li ma yor andi li nga yor lay lay la laa wóy kon na ma agressé yow andi li nga yor bàyyi yor ma ba eh bàyyi li eh damay damay waxu ne Kim nói mình Là Huy Quá Huy Cơ đẹp luôn lên Huy Ui Như là này Huy đây Huy Này này lần nào Ê Huy lên Tao ăn Huy Huy sao này Huy ơi Huy Lên lên lên Ê Ê Ê Ê Ê Tao ăn Tahu leh, baik. Bunja baik leh tahu. dama maa lay dimbali si. non maa ngi lay dimbali si boobu dem na boobu dàq naa fu mu dem. day dóor de. boobu dàq non demal naa bul dóor bul dóor. dafa naan booy nga maa bàyyi rek. non dafa naan booy bi dafa réew booy bi lu ne lay def ci kër gi. booy bi dafa réew booy bi xoolal booy bi sonal nañ ñu ñun. la waay dafa réew quoi. waaw kaay dafa ma génn la ci nii. na fi naan. man kay naka jekk la may wàcc wàcc mbarkale mu mu mu sori lool. noonu def man nga daal fi may wàccee nooy na sori na mu naan la yi def. nii rek lay def kii mooy doyeram lii rek la dëkkee ñun. mais grave ñëw rek. yii kon da nga ko xam. naa ko ñoo bokk koñ xam nga seen kër. xam naa seen kër kay yóbbu yóbbu ma seen kër. yóbbu ma sama kër yóbbu ma seen kër xoolal Pape Pape Diakher. déet yow mënoo rëcc yóbbu ma seen kër ñoom. père dafa naan xam nga yóbbu ma seen yóbbu ma seen kër. samay daal mënuma demee nii. waaw xaaral ma sa daal sa daal. dafa nga ne li jaadu la ah. dafa dafa dafa naan. yow génneel samay daal. solo solo bi solo. ah. waaw bàyyi ma sa daal sa daal. sama daal la. waaw bàyyi ma dem sa daal waaw bàyyi ma. daal di ñëw ah lii lii lii jaadu la dëkk bi la sécurité bi doy dana war a renforcer sécurité bi brigade dana war a renforcer mbir mi ah magam jëmm yàlla liggéey ba ñëw ci amul leen leen leen lu def lu xale bu ndaw papa gisuma sa daal de gisuma sa benn pat daal am gis naa mi ngi nii xaaral xaaral xaaral dëkk bi la la sécurité bi doy solo solo brigade yi dana war a renforcer personnel yi waaw solo solo père ah ngëj kan dem na sa xel xaaral xaaral ma jox la bant ba gaañoo rek man kay fu ne fu dafa dafa dafa rëcc ah li ma wàcce ci garaaw garaaw tooñ na ma waay waaw nga ma bàyyi bu jëflanteeg moom tuuti rek garaaw comprendre rek dafa rew rek bàyyi ji la bàyyi ji la papa ji la rek kon fii la dëkk fii la dëkk ñoo bokk koñ yóbbu ma seen kër yóbbu ma sama kër yóbbu ma kër bàyyam ñii ñii di ma yóbbu seen kër cega yi ñaar ñi nga cega yow boy gis nga boy bi bopam bi gis nga dabalam bi eh li ma dabala gis nga boy bi daf ñu sonal quoi boy bi lu wara jog ci mbiram lañ quoi boy bi non ñun boy graawul quoi mais ki mag mère ba bayiwul kenn moo tax xamul ma lay xamal man xool bañ ko wara lijjanti boy bi lijjanti lan eh nopp eh boy wuy sama ngay wuy ay wuy ay wuy ay wuy ay ba bao ba bao ba ba Papa, papa, papa, papa. Ui ai, ui sao mà này, ui sao mà này, ui ai. man ma man doom ji ñaari fan yàlla gisuñ ko ko yow di ko dóor waaye sama doom ji waaye moom rek laa am waaye sama doom ji moom rek lañu am ngay wax moom lañu am de dalalal sa xel tuddal yàlla allahu akbar tuddal yàlla allahu akbar waaw xoolal mu ngi ci jàmm mu ngi na nga ko jàpp di ko dóor yeew ko. yeew billaahi na nga koy dóor. déedéet kenn dóoru ko xoolal tuddal yàlla tuddal yàlla. allahu akbar dara dalu ko. jiitu dalalal sa xel. ay dalalal sa xel. moom rek laa am déglu ko déglu ma suba boo yeewoo. waaw nga daal di ñaari nan dégg ku dimbali waa yalla ci liko yalla jox yene joxe ñooy nangu waaye yàllaay fay yalla xewul yemut yene joxe ñoy nang waaye yalla moy fay amee yalla jox la baax jërëjëf ah, waaw lii lum ay nan la nan neni lan ah ay nan ngay san pa bu ah, jël de naar dégage dégage bu lal luy ndey nga may sax ay nan ah? man na naa omelette de xam nga na ma la waaye gâteau omelette nga na ma omelette dama ci saa na mujj tey nga may joxe nan laa la wax de nga baal li ma la wax ndëkk lii mooy la boo saraxee ko war naa saraxal lu baax ah ni ngeen def jàpp sëriñ nag di ko xaatim ba mu ko dina ko sarax lu xaatim ko de yàlla xam ne xaatim xam laa wax fa see boo saraxee war naa saraxal lu baax yow daal bu laal bu laal may ma rek yow li nga nekk maa la ci bàyyi waruma laa saraxee nan waruma laa saraxee nan yaay kan xamoo maay kan ah ñun da ngeen na war a boole ci seen biir waaye jàpp ay na ñun xaatim bi ko joxe loolu tegoo leen ko fenn xaatimun ko de waaw xaw ma xaatim nga ko xaw ma xaatim xaatimun ko de ah xaatimoo ko xaatimun ko de xaar ma foofu rek moo la ku xaatima ku awa bul doon. Eh, eh, baal jàmbur. Eh, naar naar man naar yéen naar man naar. Ah, kon taxawal ñëwal. ndëj. maa yow booba. maa lay engagé yow. Pape. man de wey naa laay yow de dem nga béy man de wey naa laay yow de wetal nga ma. man daal mi. wóo oh, lii moom bi yaakaar naa bu jaay dina ko gis man daal mi. lii a yaakaar man de wey naa laay yow de dem nga béy man de wey naa laay Yolami ni la xam. doomi ma caat kaay. di ko xale bu réer. mu tudd Badou Mbaye. mu mën xale bu réer. ah. waaye maa la gën a sonn nag da ngaa teel a sonn lool waaye nan jëm. ah ba nag ñett fan yàlla a ngi nii mënuñu ko fexe ba gis kuy win nag. léegi nañ jubal ba ne ñu jaar xool ah. buñu ñu dé mënu ko ñoo kër ga tay du mu tudd ci lal te gisuma du mu tudd ci lal te gisuma ko taal nga trop da nga bañ xalé bu bëggoo feñ xalé bu reer du tudd man dumbe ku far xalé bu réer man dumbe du tudd man dumbe kan moo ko fi gis waxal ca taw dama son so baat bi dem xalé bu reer waxal bu tudd man dumbe xalé bu reer bu tudd man dumbe ku far xalé bu reer bu tudd man dumbe doomi Macaat Njaay dëkk fële ca Kër Masaar xale bu réer ku far xale bu réer ku tudd man dumbe yow jàmbaar waay dugal naa ko waay dugal waay dugal dugal jëlal bool jëlal jëlal bool sal waay ak yow est-ce que naawal doon xale bi xale bi dama leen yàq naaw tal bi jeex xale bu réer da nga koo bañ rek bañ mu feeñ waaye dina feeñ de ak yow kër laa koy diggante dama sonn li ma jëmoon yëpp def naa ko aw ma ci njëriñ yàlla xam ne du ma la bàyyi frotté bi ma frotté bi la yow tam. nijaay frotté bi ci marché bi laa ko jëndee. ah waa de da ngay laaj wala nga liir waaye yow bu ma nee sama yaram metti na rek bëgg nga ma bëggeel nga wax dëgg a frotté lu may rek neloo ma ca rus naa laa ko seetlu ba ba ko liggéey man réewu nga liggéey. nijaay dootuma la forootee loolu. Hmm. waaw nijaay. sa sant bi may daaneel. laa ilaaha kii Dubaay la. bu hmm. may kilo waaw kilo mille cinq cent. trois deux kilo laa ci jënd. Hmm. waaw waaw deux kilos laa ci jënd kilo mille cinq cent. ñëw. kii yoo léegi dafa be kii dafa baax ci man. nijaay man daal dama xam ne tey fii ngay yendu. dama naroon a dem kër Mami Ndiaye. mais ba ma xamee ni fii ngay yendu. Hmm. dama fomm sama dem bi. jigéen bu baax bu fekkee ni mu ngi ci këram dafa am lu ko diineem wax góor bu liggéey ba wàcc. nga xam ni yaa mi ngi ñëw nga solo ba jekk ñëw toog yooyu wax ko wax ju nooy dalal xelam coono bi mu indaale woon yëpp coono bi day dem te loolu mooy indi nag doom bu embarqué ci ci kër taal ko cuuraay waaye nag frotté bi moom bii de bi waxuma boobu mu lay xool ma xool ñuy seetaan suñu làmb waaye nijaay tamit fàttalikul ne kër Mami Njaay nga ma gisee bëgg ma takk ma indi ma sa kër. waaw wax nga dëgg nag waaye boobu dama doon yoonal pour indi li ci kër gi rek ñëw nga der toogal kii seen bëri bi dafa yàgg de. Ah, yàgg na kay. yàgg na de. salaamaaleykum. maaleykum salaam. papa yaay. dox rek. papa di dox rek. looy dox sama dox bi tey. Ah. ba ma dalee dox ci àdduna ba tey sama dox bi tey la am njëriñ. ay papa neel alhamdullahi rabbil alamin alhamdullahi rabbil alamin loy ne alhamdullahi rabbil alamin ta xamoo luma lay wax nga jàmm dong laa koy wax ah, mu ngok jàmm ak salam dong jeex na tag mëndumbe waaw am la dajal ak tantam ñukoy wër da réer ñaw wuy ma xale yar lañ ci wax yaro te nga am lu la nakari jeex na nit du jur doomam sagane ko dumbe waxuma la réer yàlla na fa dee gis nga bàyyam billaahi wallaahi daal daf ma toroxal mu caat njaay daf ma toroxal ni ma fiche le camp dors ma maison moo tax gis na ko gis nga loolu bu amuloon ma rus lii nag moo tax ma la lay yarul xàmmel sa moroomu yaay xàmmel sa moroomu papa lii a tax damaa meroon ci lim la defoon mais tey laa kontaan gis na luma ya metti woon yëpp tey dañ na papa Mandoumbe dalaa jox sa toroxal ba nga ne tot bay bayam nak mu jaag nak waye ni lay mëna mel kewel du tab dom jëbët jeex na nak te bobu nak mo tax ñukoy wax mu muccaat gis nga ni ñom ya boy di tebe ni ñi tebe mo tax ñu tuddu ko muccaat njaay kon nag waruloon tudd muccaat mu muccaat ñeex la waroon tudd. Ah, de. de. ah yaa ngi wax de. yéen it yéen la borom a ci fanaan. demal dox yi demal da ngay indiwaat leneen. xoolal demal foofu yi dem di indi jëli information nag ba ñu jël sa information. yow baax na rek. mbaatu ma dem tombé ñu gis ko. sa booxul ma sa gémmiñ gi. Oh, man damaa sonn de. Eh, xar ay eh, jógal kii maa koy def waaye nijaay bàyyi ma def ko lu bon kam. waaye nag kaay ma nag ni ñu ko yore baaxul. gis nga nijaay nag kaay na ma doon xaar ba mu déglu rek dama doon xaar ba mu dem xale bi lu mu gis wax ko fenkat bu mag la te fenkat foo ko gis bu gàttul day njool rek ñaar yooyu la. ah nijaay nag ndax dëgg yàlla man damaa njool te dangaa njool nijaay ah. suuf yëpp amul duus mbedd mi à peu près mu ñëw saw la yaa dëgg dëgg yaa gën teggi ndaw yow yow mi kay ku la xool xam du ni defuma defuma dara jotul yow yaa yow ma def saw maa xool fii yëpp aw ma aw ma fu ma sawee te jotee sama saw sama tubéy baax yàlla loolu tax ma saw la eh, yow booy saw booy saw mën ngay saw moo gën ma saw sama tubéy bu nekk yow yaru woo de tey naa yaa ma gën teggi ndawal xam nga li ñaan ma gonay ndakaru kenn yarul leen waye dëggu la ah ma gëm jëm degg la dox ba son tëdd fi nelaw da ko jëf ku mel ni bax yalla pap dama sa son dama sa fon so tuuti tu sama so sama tubay yi ma sa gën gi ginaaw man duma sa morom ya ngi de dégg yow rew nga de ya ma gën rew mën nga wax rew yaa ma gën rew sa ba yarul la de ak eh, yow sa ba yarul la mën wax sa baay aha aha kon dal yow ma yow ba nii waaye tey jii billahi dinaa la woon loo xam tey ba ngay dee doog fàtte man faalewu ma la man toppatoo ma nga am baba ngay saw la i la ilaha illallah <laughs> may bari e eh, papa xanaa bii téere sawkatu lal la <laughs> faale ma woon ni yow est ce que nekkoon sawkatu lal sax wala téere bi <laughs> eh, i i i ma faale ak bari billahi la ni doom ñaana ma nekk ministre wala ma feeñ ah di demal nak àdduna sa kanam billahi wallahi na la yor ba si guddi kam ba dimbali ma naa na la yor ba si guddi kam jeul nga tous doom ay jërëjëf fa àdduna sa kanam bu na sa kanam ma puus ko jàll jërëjëf wee wee tawkati lal ko te lal la ilaha illallah amu rañ nan ndakaaru réewum bakkar la waaye dëgg la ku bëgg def bakkar bu ñëw Dakar di ko def waaye day demal aduna ak sakaram dina def loo xam ne billaahi wallaahi nit du ci man dara bismillah لا إله إلا Ngom. Ngom Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiambar Ndiaye. Ndiambar Ndiaye. ak njaboot gi alhamdulilah jàmm rek mbaadu dara di yàlla koy xanaa di ñëw di tuub di jégalu rek si di yàlla di wax ne daal man maa juum toog naa xool naa sama bopp xam ne man mi maa juum mën a sama njaboot di tuub te jégalu tuub te jégalu bu baax ndax yow wax di yàlla am chef gede deug lo mo ta dal ñoo fi nga du tuté jëg ndax yow ku baax nga jërëjëf ngoom macar doomu adam matul bëñ ak làmmiñ ñoo de kenn mu leen tagalé yaa may déggam man nak jappaluma la dara jappaluma la dara waaw ba na la ak ci xol bu sét guuy waaw ah man ngom xanaa kay yàlla mbiram ma numbe motax tax mu ñëw fi ndax ñett ñetti fan gisuma ko ah te comme que waa quartier bi dañ koo menacé woon ak yooyu lu nekk ñu ko wax dañ koy def ak yu mel noonu ma xaw ci ama jaaxle lool ma bëggoon daal ngom loolu si mën a jàpp ba mu tegwaat samay loxo soobu yàlla moom bu tegwaat samay loxo moom dinaa si jël ay matuwaay bu baax a baax a baax dëgg yàlla dinaa si jël ay matuwaay bu baax Mathiat na sa xel dal incha allah dinaa def sama kéemtalaay kàttan ba mu dellusiwaat say loxo ndax nag bëñ ak làmmiñ a dëkk mais kenn mu leen tàggale waaw te man chef de quartier gi ma doon yéen yéen a ma ko fal ma war a nekk seen jaam nag su jaree ma dem ci tele yi dinaa ko def wala ci rajo yi ban mën nu duggaat say loxo. jëf jërëjëf Ngom jërëjëf wax di yàlla am nii rek laa séntu woon moo tax mu ñëw nii lépp chef de quartier def. waaw kay jërëjëf nuyu waale ma soxna si. waaw kay dina ko baax a baax. waaw kay jërëjëf jërëjëf Ngom jërëjëf. doom moom soo ko yarul rek mu yarul. waaw yow sama nekk bii ngeen wax soo ba léegi lan la. mais tey tey xool. waaw dana leer nañ. non perte dafa leer xaw ma ko ah. wat ah. ah eh, dafa eh, teej moo tax mu watu. non non non <laughs> ah. mais nag man maa ngi perte man maa ngi perte mais damaa dañu ko wat ni wat. xoolal waaw waaw waaw. gis nga may faa boobu. waaye Seye xam na ni sa bopp maa dàqale de waaye nag gis nga yéen ñaar. maa ngi leen di gërëm waaw waaw. ndeysaan attention attention. waaw waaw moom père. ndeysaan leeraay bi. waaw ca bopp koñ ba lañ ko toll séer ko. ndeysaan séeri sama xarit. bilaay séeri yow <laughs> yàgg nga ñoo defal teranga. loolu am na moo tax suñ fi rombee dañuy jàkkaarloog yow wax la lu baax. ndeysaan sama xarit. laaj laa xëy na laa sunu daa gooba seet si la. bu ñu daa gooba seet si la. bu ñu daa gooba seet si la. bu ñu daa gooba seet si la. bu ñu daa gooba seet si la. ndeysaan ñu woon ñàkk bañ a def ndeysaan laaj mooy doomi ndeen de laay waay ndeysaan ma def fu mu dee nga dee maa xam lu mel nii mooy doomu ndeyam daañ laa xëy mais xoolal ah koro ba ma ñëwee sa kër am na lu ma la njamar eh, eh bala taxaw dafa génn pecc mu bees eh bala taxaw dafa génn pecc mu bees loolu lu mu ah, muy tapaw ay tapaw muy tapaw ay tapaw muy tapaw ah na la topp boo ah. boo ma ko defete ma ay mag yu jëmm si lañ nga naan ah. capp tànk du ñu jootul dañ dañu samaro eh sama gars yi am na lu ma gis de. loolu lan la ndumbe feeñ na de. waaye dafa dof. waaw waaw mi ngi ànd ak baay bi ak dégg nga maam tante ji. Ah, loolu dina ko ñàkk ah ah ñu ngi ñëw de. waaw wax mi ngi ànd ak baay bi. dama nuyoo dama nuyoo waaye nan dem ngaa dama nuyoo dama nuyoo salaamaaleykum. yow ñi ñoo la liggéey ba nga def ngaa da nga nuyu. li ko jommal xam nga ko tantam jee ko jommal. wala yow sa bopp bi la doodaan moo ko eh, def. koy wax doodaan dama yi ngeen doon bi nga xam koy wax doodaan dama yi ngeen doon. sama bopp moom mooy doodaan yow ba. yow xaaral. war na ma ko. père moom moo gën a ndur dóor daan moom ma loolu waaye seet leen sama bopp bi waaye comme dóor daan. non père déedéet non moom moo gën a ndur dóor daan parce que moom dóor daan ma dem France ñu ñu formé ko ñu déformé ko. <laughs> mais père kii xamoon naa lii dina ko dala tey fayu naa. booy ah lu ma ko mos a wax fayu na ko ci benn moom bu mel ni dóor daan mos nañ ko. waaye ma ni eh dama ni lii xoolal ji yaay rek. léegi nag ma wax leen leen waaw gis ngeen xale bu yaru lu yaru rek lay am xale bu yiiw li yiiw rek lay am xoolal ni nga mel xale nga moo tax ñu yaatale la suñu biir xoolal sa xarit bii noo mel xoolal dégg nga suñu xale yor seen ngoo yi fu ñu fekk bëggal ñu lu ñu am may leen waaye ni ci koñ bi di saaga ay mag di leen door ay bal ci mbedd mi mag mu wax nga dugg ko nu duusu bàyyam yàq ko lii yëpp mu caata ko def xamoon nga ni billaay te na dof xamoon ngeen ni dina mu caat de mu caat nañu doomam ji waaw xamoon nañu fii léegi nag xam nga xam nga bon weesuwul nee na ñun ñoo ko liggéey mu dof ah mais mais ñoom mu caat mi dafa con mag mu jaaxle dafa con oui mu jaaxle lu lu ko neex lay wax gis nga nag yéen ñi bëgguma ma ngeen mel ni ma ndumbe mi fonk leen seen waajur dégg leen seen waxi waajur lu leen seen waajur wax lu leen tere ngeen bàyyi ko gis ngeen ndumbe fi mujje de bu ngeen wéggé sét waxi wajur nak ni ndumbe ngeen di mel te bëgguma ngeen mel ni ndumbe wax naa la ko nee naa la bo waccé ñëwal eh, ci kër bu jadd fenn yeen suñu waju ngara bu leen ñu topp ci lu ñu neex ba sétan seen do ba ñu mel ni ëllëg ni xaale حالي لخالي حالي حمدنا لخالي حالي لخالي حالي حمدنا سجن جوي حالي حالي